léegi lu mel noonu nan la ko nit di déggee ne élection yi naa fexe coûte ko coûte ma participer ci. yow yaa ngi organiser loo xamante ne yow sa détriment la te li ma la wax boobaa di nga ci comptable xam nga membre cette sage yi après bi ñu publier liste bi def seen décision wax a wax ni ñu signé ku nekk par force yow mi tam boo participer par force dañ la lim ci élection bi jox la sa pour pourcentage mu lay neex jox la sa pour centage mu lay naqari. <laughs> kon loolu noonu ñoom war nañ ko seetaat bu baax. Mm-hmm. projection ou liste 20 personnes mais élection bi ça se jouera franchement d'une manière déterminante et précise entre deux candidats c'est Amadou et mhm. bi ñaar la mu ngi combat vous amee. da nga résultat résultat gis nga bay càmbaral yenn ci ay candidat rek. nee naa la sax xaw naa la junj. waxtaan yi commencé na de. ma ne. Ah, ku ci ku ci mën ci waxtaan aussi on a validé les candidatures yi. waaw d' accord mais. ah waaw ku ci désister waaw la ci des pare. de toutes les façons gars yi ñu ngi schéma ba. ba fajar am na candidat yoo xam ne non candidat am na ah. possibilité désister. loolu yoon may na ko day désister su ko defee moom bu ko neexee dox ci leneen. ñu bañ ko cee loolu loolu am vraiment euh, euh, ce droit mais lu mën am. que ni désister ni def grands ensembles nee naa la ñaari candidats yii. Hmm. ñooy wote bi. et Amadou Ba ci 20 yi nga conseil constitutionnel bu résultat bu ça va peser. moo tax la carte électorale bi may jëwaat di la ko li grande ville du loolu mooy def élection bi. localité yi ci biir réew mi yooyu ñooy def élection bi. Ah ah. te bu résultat yi wàccee boo naree jommi foofu ngay jommee mais du ci ville yi parce que ville yi surtout tendance yi dafay des fois li muy dessiné wu toujours du am du am kii nii du am changement. à Dakar à Thiès à Diourbel dafa am benn fille boo xamante ne mun nga ko tracer ne favorable na. loolu amul sax loo xam ne dina am surprise. Mm-hmm. mais tendance yi jóge ci dëkk yëg dëkkaat yi yooyu nga dul maîtriser. te bu ñëwee di nga ko boole par force ci comptage yu xob yi. ndax ci vote yi lay bokk ci voix yi lay bokk. absolument te loolu souvent mooy indi euh, bu ñu joxee résultat nit ñi di waaru naan waa nii fu mu fu mu jaar ak nan la demee. Mm. parce que fi nga war a xool doo ko xool yow yaa ngi jàpp ne mbooloo mi am si grande ville yi moom moo la si génnee alors que. bu wàllu voté jotee dégg naa pas-pas bi àll bi di am ci voté du ci ville yi ndax day faatu des fois wala sëriñ mën na nelaw ba 11 mu jóg. dëgg la mën na dem comme mën na bañ a dem am na ñoo xam ne ci ci ci maanaam ci jotaay waxtaan bi lañ gën a féetee mais du ci dem dugg ci bañ gàcce. di saa donc dañoo gaaw a découragé. dañu gaaw a bi ñu raay yi donc c'est ça ah. alors que àll bi nag. Eh, sama mbokk yi moom ñoom élection ñoom wax dëgg yàlla loolu dafa doon bés bu màgg xëy dem vote ji café wuñ ko réewe wuñ ko au cas où fii dans les grandes villes di nga gis euh, c'est pas dans toutes les familles la ñëpp xëy di vote ji te pourtant dina am ñoo xam ne dañuy liggéey bu bari ci àll bi dañuy war a liggéey léegi nag collectif bi lii ñuy woote mhm. concrètement ci lii la wund ku ko foyee yaa ngi foyee sa résultat le 25 février te bu boobaa Mouhamed Diop bu toogee fii balay jox say tablette <laughs> bu mu la métti parce que yow yaa dem pour di am ay tablette ku ci nam nem rek. acca <laughs> ah tablette moom bu jour baa di ci doyal. bu ah. baax donc c'est pour dire. pour pour pour pour être vraiment sérieuse mm-hmm. ce collectif là il faut le prendre au sérieux mm. te revendication yi nga xamante ne moom la ñu porter sur la table mm. loolu lu légitime la parce que li ñuy wax fu wóor lañ ko teg te képp ku am bon sens xam nga ne ñii li ñuy wax lu leer la léegi nag ku ci am jiixi jaaxa wala nga foog ne concerné gu la yow bu boobaa di nga leen rejoindre te boobaa yaakaar naa ne ce sera trop tard. waaw. waaw li ma si bëggoon yokk très rapidement. de dama ko fàtte woon évoqué te mm. démb loolu c'était un point essentiel bu ñu évoqué foofu. xam nga ci ñu wax ñëpp Guinée équatoriale moo mën a kat.

kon boo delloo si loolu tënku ci loolu da ngay xam ni ñii dañ leen a tooñ. parce que aujourd'hui ñii li ñu leen reca recalé du seen faute de faute informaticien bu conseil constitutionnel la. parce que ku si ne la nga xamante ni moom lañ dressé ci fiche bi de parrainage bi sàmmonte nga ak loolu. donc kenn lay xew biir conseil constitutionnel la mhm. pour rejoindre les Fatou. donc revendication revendications nga xam des revendications légitimes Ce n'est pas parce que tout simplement ils leen recalé. ñu am seen làmmiñ di non non parce que tout simplement dañ leen recalé parce que liñ leen recalé. Mhm. du yoon. te ñu mën te ñu mën ci non mën nañ ci parce que démontré nañ ko l'ingénieur en informatique bu Abdourahmane Diouf lim ci des démonstrations très scientifiques. Mhm. l'ingénieur d'Ousmane Sonko de Bassirou Diomaye avec des démonstrations très scientifiques je pense que lolu amul lenn. la vérification sur papier bi nga xam papier, dañ ko occulter. bañ ne duñ ko def. question nga ñu mëbulee li bu Bouya moo nag maa ngi doon maa ngi doon xas ñi mënta am parrainage ne leen delloo leen suñu fichier. loolu yaa fi njëkk a waaye ñoom ndeysaan ñoom ñoom ñoom ñoom ku yóbbu rek bàyyi leen ak fichier. bàyyi leen fichier kenn doyoo ko ah, dara. dërëm Bamba <laughs> ña nga foofu mais mais mais Bamba. ñu ñëw nag ci euh, kaw jomaay Habib Sy ak Cheikh Tidiane Dièye euh, pour qui va voter selon toi PASTEF parce que aussi euh, c'est important ñu souligne ko. En tout cas, jusqu'à maintenant, Sonko n'a pas, n'a pas, euh, en, tout cas, n'a pas fait son choix définitif euh, de Les trois, d'ailleurs, vont déposer euh, leur spécimen, qui est direction générale des élections. Deux camps se dessinent. Deux camps. Pour moi, oui, candidat logique, le candidat de la logique, parce que Diap après Sonko, logiquement, Bassirou Mouaw

parce que souvent buñu guéné mbir dañ nan mandataire bi si mom la jaar mu guéné si mom wala avocat bi si mom la jaar bien vrai motax on le fait confiance mais ba légui ni comme ni wax sànq ñun su ñëwee suñu xel di analyser di xalat ay candidat ñoo fi génnoon ne Ousmane Sonko mo joxe ndigal né nañu jël ji ay fils de parrainage euh, muy ki nga xam mooy Bassirou Diomaye Fay jëloon na ko muy ki nga xam mooy El Malik jëloon na ko muy ki nga xamante moy Birame Souleye jëloon na ko après bi liñ ci gis mooy gis nañ ne après yow da ngay gëm rek seen wax après nga mën a dund ak ñoom noonu mais da ngay xëy xëy gis ne ñoom ñenn ñi dañoo retiré wu mu kii di Ousmane euh, kii di Bassirou Diomaye Faye mu ñëw nga xëy xëy gisaat kii di Cheikh Tidiane Dièye euh, mu ñëwaat peut-être que mu newaat moom aussi Ousmane Sonko jox na ko ndigal na jële ji parrainage mais su fekkee ne président Ousmane Sonko moom candidat a été validé moom day retirer sa candidature ma ne peut-être que li ma jàpp mooy yow da ngay jàpp concept rek jàpp philosophie peut que mooy euh, passif mais munoo xam ba ban voie ngay gëm ak kan nga dul gëm mooy indi li nga xam mooy équation bi mais man pour man logique des logiques bu ne Jomay fay mooy Sonko Sonko mooy Jomay jàpp naa ne ku bëggoon Sonko ku gëmoon Sonko war ngaa mën a gëme ji Jomay fay la logique voudrait ça jàpp naa ne aussi bu fekkee ne Sonko n'est pas Jomay Faye mooy placé mm-hmm. parce que loolu la logique. bi dañoo jàpp ne six ak mooy neuf El ba mu demee si Pape Ngagne Ndiaye li nga xamante mooy faram fàccee waxaat na ko nee na peut-être que ku jàpp si li nga xamante ne mooy Sonko jàpp nga si Jomay ku jàpp si Jomay jàpp li nga xamante ne mooy jaar foofu la Jomay jaar mooy man nii tey man jàpp naa ne tey ki nga xamante mooy incarné li nga xamante mooy tey la philosophie passive si élection yi man jàpp naa ne Jomay fay lay doon man nekkuma sax si laam-laame wax ji nag mooy peut-être man. sama sama inquiétude nekkatul si soit bi poser posé sama inquiétude moy lo bëgg bëgg bëgg aussi projet passé mu aboutir da ngay xamné li ci Ousmane Sonko nekku ci Diomaye Fay légui na lool moy tay ñom ñi nga xamanté ñom ñoo euh, porter combat wu. Diomaye Faye mais Diomaye mënees na koo Ousmane Sonko. bien bien sûr loolu l'a fa laa jëm. mooy foofu laa jëm mooy analyser moy motax man la. tay la candidature la candidature de Diomaye Faye tay ñi ko mën tay tey porté protéger ko liggéey ci loolu dafa laaj ben combat sur le terrain combat de sensibilisation parce que Ousmane Sonko mo yomba yomba jaay que Diomaye Faye parce que Ousmane Sonko moko sur le terrain mané tay inquiétude neku tay ben Bamba comprendre que Diomaye moy Sonko wala Mohamed comprendre Diomaye moy Sonko. Mhm. mais sénégalais bi nek au fin fond du Sénégal sénégalais bi nga xamantene mom peut-être Ousmane Sonko le xamone top loolu ñi nga xamante ne ñoo nekk si biir kooku non il va falloir nga dem ko fexé ba xamal ko ne ko Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye te loolu ça va demander sur le terrain sank ne fat mi ngi wax ne amna ci si yenn candidat seen jafé jafé moy Sénégal dafa yaatu il y a des fins fonds du Sénégal est-ce que réellement état bi ak moyens yi mu am est-ce que fa mu mën a dugg li nga xamante ne mooy tey si euh, si gox-goxaanu dëkk Sénégal yépp ba mën a fexe ba aboutir au Sénégalais est-ce que réellement tey waa Pastef ñi nga xamante ñooy porter candidature Diomaye est-ce que am nañ les moyens qu'il faut ah. moo tax nag ah, ça va demander à ce que. <laughs> ça va demander à ce que. ça va demander à ce que nous nous mobilisons toute cette opposition bi nga après cette philosophie pour nous and ànd faire des additions et pas la soustraction moi tey su ma un Guy génnoon na fi demoon na si diaspora dafa na collecte de fonds fonds yooyu nag nañ ko jëm a fexe ba teg ko si la sur la table teg ko sur le terrain pour que ñu mën a aboutir mais aussi un soutien de taille bi ma gis ne peut-être que Bougane gis naa ko si euh, plateau Pencoo bu Walfadjri moom peut-être mu ne moom dina jàpp si candidature Sonko kon moom dina mettre les moyens qu'il faut bokk na si ñeneen ñi nga xamante aussi mooy ñi gëm loolu nga xamante ne mooy candidature mais nag dañuy wax ne aussi la visibilité day jouer Mohamed la visibilité ça va jouer dans les élections nan la jomay di defay campagne nan la campagne di ñëwé motax l'inquiétude de Guy Marius Sagna ma comprendre ko si conférence bi mu nee nañ ko bayyi mu génn pour mëna nek au même pied d'égalité avec les autres candidats est-ce que vous savez que jomay instant bi ci élection yi nii moom dafa nek un candidat à moins, parce que tay ñëpp ñi ngi génn di mëna battre campagne ñëpp ñi ngi génn di mëna wax ak di safonté li nga xamante sénégalais mais mom tay yoon da ko teg loxo nan la mëna fexé tay ba sénégalais xam ne kii candidat bi amna ko koo bëgg na gis sa physique pour mener a am sa sympathie am na koo xam ne bëgg na dégg discours pour mener a am sa sympathie am na koo xam bëgg na saafonte ak yow pour mener a am sa sympathie et encore une fois dafa am ñoo xamante ne li may wax chaque jour mooy le bas peuple lui. am nañ ko ñoo xamante dañoo bëgg yow ngay ñëw si ñoom pour mener le convaincre est-ce que yow buñ la gisul est-ce qu'il buñ la gisul ku tukki ñu rees sa ginnaaw. léegi nag am na koo aussi mom il faut que parfois mu xamne Sonko moy battre campagne pour mu sawas moy sànq fi ma doon waxee sànq mooy am na koo xamante ne Sonko lu beug Mm. moom nekkul si ay problème mu la wala passif la. Mm. moom fan club Sonko la. léegi kooku noonu tey moom bu gisul Sonko est-ce que dina ko jël mu fajar ne day dem voter ji motax tax paramètre ne paramètres yi ñuy jël pour kaw Bassirou Diomaye fay ak waa passif bu Sonko moy paramètre bo xam il faut ñu.